salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk yaraax salaamaaleykum yéen ñi nga xam ni yéen a seetaan Hann TV ah borom frapp yegg si na yegg si na fii nga xam ni Momo moy yarax yek sina fi nga xamni fi la Moussa Ndoye champion bi di uh, solo fi nga xamni fi lay déparé way yek sina fi ci yarax nga xamni fi la Moussa Ndoye defé carrière lam légui nak mbokk yi ma ngi dem fi nga xamni ah mom moy seeti ay mbokam way seeti walé ñi nga xamni ni togg kat yi ma top leen kon gañi ma ngi fa acca borom frappe yek sina na ñoo dem tay ji nee na togg añi champion lañ fi fekk mbokk yi xol leen li champion tey moom mooy togg li nga xam ni moo mooy ay añam champion champion lan moo la xiir ci lii waaye kontaan uh-huh. waaw ah cam xam nga ni lii boo ko gisee mbër mi ànd naag confiance mbër mi war a bëre <laughs> kontaan <laughs> ayca mbër war a përe kon man Moussa waaw xel dal bu baax a baax uh-huh. waaw xel dal di ñaan si yàlla yàlla mi am ndam uh-huh. yàlla ñu ko ñodil ba fii may ñu ko si ci yàlla ñu suñu xel dal na Yaraax moom no stress man no stress la ñuy dund no trois cent la ñaan yàlla di nga ñaan yàlla si barkeb sëñ Babacar ba muy yokk faa ba a yàlla nga yàlla defal yàlla nga bëgg a defal arène bi du waa arène bi yàlla nga jël yàlla nga defal ay bi nee na trois cent la woon premier lu ngeen xam ci lu ngeen xam ci champion bi. si champion bi xanaa def lu baax rek ndax xale bu yaru la bu bëgg ay nit xale bu teey dañuy ñaan yàlla yal na yàlla may ndam si barke sëñ Babacar si comme fa mu daan jaar yal na fa jaar ndax ñun ñoo koy mos a ñooy mos def yëpp yal na yàlla may ndam lu sedd guy ni galaas. ba tey ñu ngi ci ñu ngi ci waañ wi waañ bi waa waañ baa nekk nii ndeysaan fekk naa fi mbokki Moussa Ndoye yi. ay ay jigéenam ñoo ta ay magam ay rakam ñoo ay ay jabaram ñoo nekk ci fi nga xam ne moom mooy waañ bi di ko toggal añ bi te gis naa léegi samp yoo ñëw ci euh, waañ bi di togg loolu loolu ngeen ci euh, gis am ci mbégte rek mbégte bu baree bare ndax Moussa moom luñ ko defal ci njóobeen gi dañ koo amul waaye bu tey ji bu ñu amoon lu dul jeex fi la ñuy làng ñun ñëpp ndax Moussa baax na yaru na dina kaf dina ree kër gi ñëpp la sonal man moom la gën a sol bu ñëwee ne man maay jabaram moo tax mu taxaw ma ne ko jox ma sama ndékki Moussa moom lii du sens mérite la te roi des arènes incha allah lañ koy ñaanal. amiin waay amiin waay amiin waay ci barke Serigne Babacar si lu mu yaakaar. lan nga xam ci Moussa waaw Masamba Kumba Jaw gaynde gi borom maa leen soo ma ci laajee rek dinaa nangu Moussa mooy Marème Ndiaye ndey démba jéeni beeñ kumpaañ sa beeñ amul nag sa beeñ doomu siidi bi ci tubaab jalaaw Moussa Ndoye musaa xale bu baax la xale bu yaru xale bu xam ku ay mbokkam man maag yaayam suñuy ñaari yaay bokk ndey ak baay kon affaire bi deret la mooy dana kas làmbaan nag décc ngoone làmbaan donay Marème ndjay ndey Demba jeni beñ kumpaañ sa beñ amul nak sa beñ doomu sidi bi ci tubab jalaaw musa ndoy moy borom ñenti laman ñi ci njoot musa ndoy juróom-ñaari mamam yeb séeréer lañ pire Malikunda la la maamam juddoo ak yeen musa ndoy ku ko wo mu wuyu la jambar la gaynde la gaynde la moy sëtu lam combaan kon warna meuna nek roi des arènes ndax mamam da doon waaw famille yëpp ñëpp làmb moo leen intéressé ba si maam Moussa Thiombane kon Moussa yal na ko yàlla defal jàmm Moussa yal na doon roi des arènes andi ko fii ci yaraax ñëpp di ko gis yal na ko yàlla def te man lu ma ko ñaanal mën na ko dal ndax meen dafa foor musa Ndoye yal na sut sax Balla Gaye ca kaw a kaw a kaw a kaw yal na ko sut laa la wax ci darajay yonent bi. dëgg la yaa ngi gis loolu dégg loolu ay mbokkam fekk nañ leen si waañ mi ñu ñaanal ko. Euh, fekk nañ fi champion moom it si boppam mu ñëw di jekki cin li kon confiance am na fi nga xam ni moom mooy ci côté Moussa Ndoye léegi nag damay dem seeti fi nga xam ni fa lay waajalee ma fekkaat fa yeneen mbokkam xool yeneen ay photo photo Moussa Ndoye ak li ñu préparé maa ngi dem foofu aca mbokk yi jeexagul de mbokk yi jeexagul waxoon naa leen dinaa leen wan tey lu ne dina leen ko wan wan naa leen togg gi wan leen ñi nga xam ni moom mooy photo yeeg ñoom seen waaye tey maa ngi taxaw ak ki nga xam ni moom mooy euh, ànd ak Moussa Ndoye bi muy commencé ba léegi moom mooy Mor Sow tey Mor Sow nan ngeen waajalee làmb seen làmb tey. waaw. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim waaw combat comme ni ñu ko daan préparer rek moom lañ ko préparé quoi mentalement pare nañ psychologiquement pare nañ physiquement pare nañ wax dëgg yàlla li ñu daan yóbbu yëpp boo xoolee macha allah pare nañ. ta tamit daañ ñew en en masse inshallah rabbi mu dama gis mbeur legi dem ci wañ ba gaddu bi di fo xalé yi lolu lan la lay jangal lan la lay jangal waaw koku dafa def ni mu daan def rek dafa bëgg a ni mom dara nekkul ci mom andul ak pression andul ak dara dafa and ak xel mu dal te ñun ñëpp mom lañ andal bo xolé psychologiquement ñun ñëpp dañoo paré ñew nice dal wax dëgg yalla niñ daan xey rek lañ xey sante yalla rek wax dëgg yalla yow kon am nga confiance sa mbër. waaw man moom sama mbër moom wax dëgg yàlla du li ma dëkk ak moom moo tax mais dafa neex a àndal ci làmb mhm. moom bu xëyee moo lay njëkk a wan boppam moo lay njëkk a wan làmba moom kay dañuy ñaan yàlla moom fi mu daan jaarale mbir rek mu jaarale ko fa ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim yàlla may ñu ci ndam lu sedd guy ndax yaraax yëpp taxawu nañ ko ñu génn ci alhamdulilah rabbil alamin wax dëgg yàlla yaraax jàppale ñu ngi dem seetiwaat keneen koo xam ni moo yor ki nga xam ni moom mooy Moussa Ndoye ay ca gaay ñu dugg ci biir xool waxoon naa la ko nee naa la maa ngi ñëw fi nga xam ni kooku moo yor Moussa Ndoye muy Pape Sidi Diop tey jii Moussa Ndoye yàlla ak moom tey moo ko jàpp jàngal ko pap sa jaar-jaar ak Moussa Ndoye ah tey kontaan naa trop trop trop ci question bi nga xamante ni moom nga ma posé tey am naa fierté pour wax ci Moussa Ndoye parce que Moussa nekk na suma mbokk ba nga xamante ni tey jii wane na ni sama mbokk la benn deret lañu Moussa Ndoye ñëw na ci man boo booba duggul sax si làmb ma jël ko téye ko jàppee ko ni ko doom jël ko dugal ko si sama atelier di ko jàngal métier làmb fa la ko dabee ci atelier bi man nekk ak moom nekkin ba nga xamante ni rafet na lool mu nekk fii ci sama kër amul lenn lu moom bu si moom léppam ma yor ko kon nag tey jii waa famem Moussa masul am làmb am benn por famem ba nga xamante ni ñëw na taxaw wala nga am looy wax dañ naan ma grand baa ngi fi ñun amuñu lu ñuy wax lépp yow yaa ko yore ba fi ma waxee cër boobu lañ ma cërale baayam da doon wax ni su ma dundee su ma dee dénk naa la kii kon nag tey am naa ci responsabilité am naa ci cër tey moo tax am naa mbégte pour wax ci répondre ci question bi ngeen ma posé tey. muy bëreeg euh, champion bu tudd Garga Mbossé. nga gis Moussa. yow nga xam ya ko yor bo ba légui lambam yëpp fi la la fekk. nan nga gisee tay Moussa. Moussa boko ko rek xam Moussa boy and ak mom toujours da nga am confiance. parce que mom moy incarné lolu Moussa bo àndee ak mom toujours sa xel mu ngi dal. tay ji Moussa boko xolé xoolee si suba ba légui mu ngi kaf mu ngi fo mu ngi ré bu doon ñaneen ñi ñu ngi dugg di lalu di def ni Moussa de combat am bi à chaque fois dal mom ni lay démé moom. chaque fois dañuy jox confiance wa moy loolu bu démé duma daan ko xam nga ñu ñibbis am xanaa mbékté ñu sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam man li ma waxoon rek loolu lay wax ni ñu doon waajale premier combat moom la ñu waajale combat bi làmb la rek làmb la sport la ay nawle lañu ñu war a daje yàlla dogaloon ne dinañ daje ñu war a daje tey voilà musaa moom ni ñu préparé mbër yëpp lañ koy préparé pour mu nekk athlète ni mu mel nii nii noonu la ma samel loolu ñun ñii sax jaaxluñ ci moom depuis mu nekk xale ba léegi mhm. peut-être ñu bëri bi mu mag lañ ko xam mais nii la ma samel mooy ndam jaral na ko lu nekk ci lépp lu mu nekk nag daf ci bëgg ndam. waaw mais te ni ngeen waajalee yëf yi. waaw comme d'habitude rek comme ni nga daan defee rek ala ca dem indi ndam fi yaraax def comme ni ñu daan defee comme d'habitude Moussa Ndoye daal nekk na mbër moo xam ne daal mbëru askan wi la mbëru yaraax vive yaraax encore vive yaraax. jërëjëf booy yëngal leen. kon gis nga xale yi sax ñu ngi ndax Moussa Ndoye nga war a xam ni. tey waa Yaraax pare nañu pour ànd seen mbër yóbbu ko stade xale yi déggu ma li ngeen wax. waaw gis nga ay lebu lañu pire waaye yaraax boo ko gisee laabu waalo waalo yéeg lebu yéeg ñoom ñëpp génn nañ ànd ak ki nga xam ni moom mooy Moussa Ndoye ngir fas yéene ko gunge fi nga xam ni moom mooy stade kon gaañi ci kanam tuuti moo war leen li nga xam ni mooy. Euh, ki nga xam ni moom mooy euh, président bi nga xam ni moom moo yor 100 pour cent yaraax ma waxtaan ak moom sama gars yi ñu soog a départ nag jëm feneen acca ñu dem Hann TV booy wax la Hann TV ma dégg. Hann TV ca kaw ca TV ca kaw ca kanam. jërë ngeen jëf jërë